I was waiting for this semester right here. maa ngi xaritu sàpp dégg ndaat saay soo déggee dexin si pasi pasi man la dee jógee. It's time for Semester Avenue. Let's have time. Let's have fun. ngeen def Gambia Talents hello Serigne Japa Chole indi Gambia. bu ma doon ñëwee fii jaar na more than five different airports yi waaye amul airport boo xam ne laaj nañ ma ma fay xaalis. ba ma si gannaaw naxari ma ñëw suma oon dëkk fu ma juddoo fu ma yaroo fu ma liggéeyee may fay xaalis loolu jaadut. voilà naka woon sa holiday. it was all right it's fine I enjoy it. Ah, seen dëkk baa ngi naaj sax bu affaire yi naka la su la ngelaw mu ngi xala fuuf ak yooyu noonu. foog naa ne c'est perfect time ak yooyu. dama just ñëw rek dama ah. dama ñëw ñëw ma holiday dama dellu si. dama dellu si. I left here since 2015 uh, uh-huh. so maa ngi